ay solution mais sàcc bi ci réew mi sàcc bi ci réew mi moo ëpp yow bu ñu demee di xas Thione Seck ma gis benn youtubeur benn youtubeur bu tudd Khadim Gueye di xas Thione lu tax parce que Thione Seck ñoom Idrissa Diop ñoo dem ci moom ne ko sodaab li fa am du yoon parce que Ngone Ndour dafa am caisse noire u million depuis quatre ans sodaab quatre ans nga am caisse noire u cent millions loolu fa loolu mooy lan loolu fan lañ ko teg bu dee dëgg la bapare nyune sodaf ken doulen contrôler of nak doulen contrôler IGE le contrôler pendant nyata 5 ans xawma 4 ans yow ñu jox la ay budget ministre bi ñew ministre de la culture ñew fofu gis ñune 800 millions ci 1 milliard 800 sodaf jël 800 millions nen ñoñu 800 millions ay frais la sen salaire ak yoyu mune le ministre bi ne le ñen li satch la li satch li ngeen def ni détournement la Macky sàll ci boppam moo ne ñu def audit SODAV mais est-ce que dégg ngeen boobu ba léegi mu am SODAV man waxuma pour pour pour tuumaal Youssou Ndour wala Ngone Ndour déedéet waxuma loolu mais dama lay da lay leer na li am SODAV moo am ci société sénégalaise yëpp parce que kii moo ko wax Pape et Cheikh Pape et nee na ba mu demee laaj SODAV ñaata artiste la ñoo fi am ngeen di gérer xam nga lan lañ ko wax six mille ba sept mille artistes loolu la ñu wax Pape Cheikh. Pape Cheikh ne leen ëpp nañu loolu ñoom ñu ne ko en tout cas loolu la Macky Sall ba mu joxee 3 milliards ne nañ ko séddalee actrices yi xam nga xaaral Macky Sall xaaral ma déglu kii li muy wax xaaral ma déglu ma déglu ma tuuti nee nañ président bi non après dinaa ko expliquer li mu wax mais dama leen bëgg expliquer yow nga ne 6000 artistes mo am wala 7000 artistes Macky Sall joxe 3 milliards légui nga ne 11000 artistes la est-ce que gars comprendre ngeen lutax ñu def lolu li Papa Cheikh moko wax nag moko do netali nettali Thione yow ñom soda ñom nee nañu six artistes la ak sept artistes mo am mom lañu gérer Macky Sall joxe 3 milliards ñom ñu yokkat yeneen quatre mille est-ce que xam nga lutax parce que bu ñuy sédélé xaalis bi gis nga 4000 mille ñu jox ñu yok xaalis bi ñom ñokoy jël récupérer gis nga nak lolu la wax fausse facture Macky Sall gis lolu bañ ko ko expliquer loolu métti ko mu ne defal leen ma audit audit kon Macky Sall ci boppam xam na ne jalgati dafa am mais moom yow nan ngay nekkee suñu président lu mel noonu di am quatre ans cinq ans yëgoo ko dañu waxante dëgg te dalee leer na bu dee Sodav loolu moo am Sodav mooy am Senelec mooy am Lonase mooy am feneen mooy am feneen li moo tax Sénégal du mës a dem dafa am ay dëmm gaa yi ngeen baal ma Macky Sall Macky Sall xamul li xew yëpp xamu ko de gars yi ñoo gorawul gars yi ñoo garaw parce que xam nañ ne lépp lu mënti am du ñu def comme américain yi américain boo defee lu ñu lu ñu warul def dañuy génn man même fii fii gars ñoom ñoom ñoom ils ont tort mais gis nga américain wala tubaab dañu xam seen àq mais Afrique du mës a développé Afrique du mës a développé parce que nit ñi ñoo ñàkk fayda parce que nit ñi dañoo égoïste yow da ngay fexe rek nooy bokkee SODAV nga bokk ci conseil d'administration bi fu ñuy sàccee rek jox la mais minoriste ñoom kii ñoo ko wax de ñoom kii ñoo ko wax de ñoom ñoom ñoom Thione Seck ñoo ko wax ak Idrissa Diop ak Aliou Guissé bi nga xam ne moom moo yor Omart nee na Youssou Ndour ñoom nee nañ Youssou Ndour moo moo ne moo teg mënul si Sodav parce que Youssou Ndour ba mu demee ci Macky Sall dafa jël ay nitam ñu nekkoon ci fekkee ma ci boole ku mel ne mënul si ak am na beneen jigéen bu ñu wax keneen mu ne Macky Sall ñii dama bëgg nga nga tegal leen ma foofu mais ñoom nee nañu Youssou dafa ne pour pour pour euh, mënul si détourner xaalis manam jël xaalis ay millions mais mënul si nak non duma ko def mënul si nak non duma def est-ce que lool taxul mu jóge fa han mais dafa am nit ñoo xamne tay lool loolu bu nga la fenn ne la tibbal ñu seddo da ngay tibb nga séddoo coon sax nag nee na Ngone nour et à la SODAV par la glace de son frère Youssou Ndour bu doon Youssou Ndour Ngone Ndour du nekk SODAV man waxu ñewuma fi pour takal Ngone Ndour wala takal ken mais Macky Sall bu fekkene dafa ne nañu def audit lan la ñuy xaar def audit. boobu ba léegi ba pare ñu ne euh, deux milliards cinq cent yi nga xam ne Youssou Ndour moom moo wax pour mu jox ko artistes yi ñoom nee na ko séddale woon bale passé noonu lañ koy séddalawaatee te séddale bale baaxul sàcc rek gis nga nit ku ñuul moo gorewul waaw gars yi gis nga dafa bëri dafa bëri ay Afrique moo bëri ay dëmm dëmm du lekkati nit yi ñuy wax ay lekkati nit yi dëmm mooy ñi yow ñu dénk la alalu réew ñu dénk la alalu réew mi nga xam ne président mënul gis lépp yow ngay sàcc gars yi gorewuñu gars yi gorewuñu bu ñu demee ba hôpitaux yi amul sax ambulance gars yi nan lañ waxee tey laa ko lire damaa jommi hôpitalu Saint-Louis amul ambulance bloc opératoire bi dañ ko tëj quinze jours nga ni ñu tëj ko fi ñu war a opérer ay nit ñu tëj ko gars yi nañu waxante dëgg loolu normal na amul ay matériel parce que gars seen bopp des fois ñoom ñooy sàcc matériel